aw buñ jógee Sénégal ngir rekk dem daani seeni doole bitim réew ñoom ñi lay ci dégeeru Asamaka fale ca Niger lañ leen daal di jàppee ay fan a ngi nii ñuy dund situation bu méttee foofu foofule tax na ba tey ñuy ñaan dimbal ci autorité sénégalaise yi. yoonu Europe lañ doon jël yàlla def li muy def algériens yi jàpp ñu rëfale ñu Asamaka waaw ñun nag dañuy lancer appel état bu Sénégal. pour mu dimbale mu xam ne ay jeunes ñu ngi souffrir ci li nga xamante ni mooy diggante Niger Asamaka Arlit Agadez ba Niamey. te instant yii ñu ngi fii Asamaka am na ñi nga xamante ne ñoom def nañu feebar am na ñi nga xamante ne ñoom dañoo réer ñàkk seen bakkan kenn gisu leen parce que bu la gars yi andee dañuy teg fii ay 15 kilomètres kenn la gis. ay agression ay dóor dem ba ñenn ñu si jot a ñàkk seen bakkan lenn rek lañ daal di bëgg mooy dellusiwaat fii ci Sénégal. kenn si ñoom sax daanaka yaram bi lépp dal di yàqu. ñu ngi fii dañoo am cas boo xamante ni cas urgent la suñu benn mbokk sénégalais lañ fekk seen appartement fële ci Algérie agressé leen sànni ay cocktail molotov diggante euh, population algérienne ak complicité police Algérie parce que sénégalais ñu ngi dund lu métti Algérie ñu ngi foofu di torturer sénégalais. di leen sàcc di leen ci loo xamante teguñ ko ci dëgg teguñ ko ci loo xamante ni ci yoon. jafe na si ñoom ñu daal di am ndox bu ñuy naan lekk wala sax ku leen jàppale ci opito yi. lu ñuy lekk baaxul ndox bu ñuy naan baaxul fii dara baaxul même daanaka fii day ngelaw rek te ngelaw daanaka day tàng rek. ñu ngi lancé un appel président de la république Bassirou Diomaye Faye mu dimbali ak premier ministre Ousmane Sonko parce ndaw yi dañoo xeex pour ñoom xeex nañ pour seen liberté ñu ngi tamit ñu ngi leen ñaan liberté googu ñu leen doon xeexal ñoom itamit ñu taxaw si farlu ko wane ko dëgg. fu mu toll nii ñuy ñaax njiit yu bees yi ngir rek ñu wàllu leen ngir rek ñu mën leen jëlee ci situation bu metti bi ñuy dund.